moom tuddee ci sax. PPS yow xam nga PPS. am naa ah waaw yow yaa PPS moom fan nga ne waa PPS yëpp. moo tax man ko ñëw fan nga waa PPS. en tout cas CEDAF bi daal ñu koy 300 millions la bu ñu ko defee équipement yi 500 millions la. loolu la ci état bi def 300 millions construction 200 millions mooy équipement yi leen doon wax. donc boo leen amee honneur bu toll ne. premier ministre di ñëw war def pause première pierre semaine prochaine yaakaar naa ñëpp war na pour dire que sa yàq bi en six ko soxla entrepreneur ah, bi ma ne ko six bëgg naa indi jëlee après donc dañuy pause six mois mu nekk encore benn kër jigéen ah. mais kër jigéen du gën a bari ci département bu baax ah. man loolu moo nekk sama objectif ci loolu nag ci di woo di leen ci ñaan ngeen gën a jàpp gën a déggoo gën a ànd. Malick Fass suñu mag la suñu xarit la mooy maire xam naa ne sa càmmiñ la gën koo jàppale parce que boo gën a jàppale rek mu gën a nekk à l'aise. xëccoo wuñu maire yi xëccoo dara.